يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جنة بني سنتي برمي سبحانه وتعالى جلتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نيو إلى نيدي نزير ديال سيوار تسنيو دروس يغي خاني يباخو تي طريقه التجانيه غيناو تي سمن ولا بانيو دون جيخال سونو ريماخ li nga xam ne moom lañ ca jëloon comme li ñuy jagoo pour mën koo dimbali ko ñu waxoon dinañu tàmbali téere bu ñuy waxal ajwibatu shafiya an baadi masaili tariqati tijaniya bi nga xamante ne al arif billah alxaaji mohamad ibnu alxasan aljakkaani al usmaani moo ko def mooy laaj yoo ay tontu yoo xam ne tontu yuy saafara la yuy saafara jàngoro yoo xamante ni ki ko bind lenn def ko lenn ci ay tari ci ay masala ci tariqa tijaniya ki ko bind di arif billah ñu koy wax Muhammad ibn al Hasan al Jakkaani ñu gën koo xam ci Jakkaani ñu bari Jakkaani rek la ñuy wax ay mu ngi tudd Muhammad ibn al Hasan al Jakkaani al Usmaani radiallahu anhu ñu tàmbale ci tàmbalikaayu téere bi muy introduction bi nga xamante moom la def mu ne bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin وآله وصحبه وأمته موي سنت يالله يا جولي سنت تاملي سي تور يالله آه، كنكو سي ملوم يسلي جولي سي نبي صلى الله عليه وسلم اك ني نيام اك فاميم ني خامي اك ني خامي يو خاتم ييب من الحمد المستحق لجميع انواع المحامد سنت موي ليغا خامن سنت موي سنت سنت يالله الحمد لله المستحق لجميع انواع الحمد محمد مغي سانتي يالله ميغا خاني موي كي يالله مبولم خيتو تشانتي موي كي يالله مبولم خيتو تشانتي والشكر له على ما اسدى من النعم الطارف منها والتالي سانتي يالله دي كو سانتي سانتي ميغا خامني سانتي غراخ جفله مبولم خيو ليغا خامتاني موم موي موكي كوي تاتان تديكو جاغلل جامامي والصلاة والسلام على قطب دائرة الوسائل وقبلة كل طالب وسائل mu ne nag di sant di julli ak selmal ci ki nga xamante ni moom la ñuy wax moo ki mooy ki nga xamante mooy qutbu dairatul wasail mboole ñi nga xam ne ñooy kuréelu wasila yi yegg ci yàlla moom mooy seen qutbu mooy daj dëpp gi mooy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba noppi di xoolu képp koo xam ne da ngay sàkku ak kuy laaj من واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سنتي يال موي سيدني يالا كين لا امول بنن بور بورول دي سيدني آه، ديكو كان ديكو سيدي آه، موم خامل المنفرد بالايجاد موم ميغا خامتاني موي كي ويت سي عمل كين فك كو المتفضل بالامداد نيك كيغا خامتاني موي كي گن سي لي ني تودي اتب موي اي ماي لير واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العباد وعد سيدنا ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم سيني سنجي بي يالا موكو يوني بباري مو جامام دين داوم سنجو جام يب ومد كل أم ومد كل حاضر <clears throat> وبعد موي تمت موي تبو موي لارتي كيف كو خمني كو تيولا كو في ناكل momi nga xamni ruhul kainat moy ruh moy amu nek tefi lepp lu am rek yent moy ruham wa sirrul mawjudat is nga صلى الله عليه وعلى اله الافاضل واصحابه الاماثل لكن مو نيو نك من فان بعض الاخوان اصلح الله لي ولهم الشان اعطاني هذه الاسئله من كان نتي مبكو طالبي دافكو يالنا يالا دفر سنين بير تدفر سنين بير نيومت نينا دفكو اندي لاجي اي لاج اي كسيون وقال ان بعض الفقراء يطلبون منك الجواب عليها في فقه الطريقة واجب اندي لاجي منكو كن نتيمبوكو طالبه نين نتيمبوكو طالبه يكون داني ساكو تيو نغا دفر لين فتوى موي اوبي لين اندي لين تونتو تي لاجي من فقلت سبحان الله أمثلي يسأل ويجيب من يرى من سبحان الله ندخ من من من من ما يكيني اللاج ما يتونت من فتفكرت ورجعت إلى الحقيقة واستخرت الله تعالى نينا تجينا وما دال دي خلات دال دي دلو دال دي دلو تي حقيقة دال دي دف الاستخار سيت لو يالا تانو لوك من وسألت منه تعالى إلهام الصواب مدال دي نياني يالا مدفع الملين يخمنتين مو إلهام الجب njub manam may yanke ak njub ak jubal go xam limi wax yëpp du tege ci bakkan nee na fa qawiya azmi ala an anqula jawab hadhihi al masail fi maxalliha ala qadri al imkan nee sama dogu gi nak dal di don dogu deugar ci ma wona tukhal tontu yi masala yi ngir dal di koy ci tukhal ko ci place am dal di koy yóbbu ci naw mana nek rek mana fa in hadhihi al masail قد بينها فحول علماء الطريقة الراسخون في العلم والعمل يعني مسألة يي يعني خمن تاني نوي برام خم خم يوم ماجي كان جمي آه، كوي كوي برام خم خم كوي موي ما نام خرم ري يعني خمن نوي كوي ينك تي برام خم خم يعني خمن الراسخون في العلم أك أكتجف يوم يعني خمن وسختي خم خم أكتجف يوم سين يوم يوم موي مسألة يعني خمن تاني يوم ليرة لونايكو مدعوم فجزاهم الله احسن الجزاء من ان يلا فيلن من ويجازي كل ما كل كل جازي كلا على قدر سعيه ونيته من يلا يلا فين يب تي لب لو خم دي ام نكو تي جف ولا ني ويزيدهم من فضله تدل لن تنجل من وما لي في هذه الا النقل من محله على قدر فهمي لكلامهم رضي الله عنهم من انك من سمي وقتي مساله يدما دف لودو تخال وخ رك maanaam tuxal waxi jàmbur rek ci nama ko déggee rek daal di koy indilaat fi mais du loo xamante ni moom ay waxi boppam bu ko defee moo tax mu ne wa arju llaha taala an yanfaa bissuaali wal jawaab maa ngi ñaan yàlla mu jëriñ ci laaj bi ak tontu yi waan yofiqana jamia li jamia li sawaab te mu dëppale ñu ñun ñëpp ci njub من وعلى فضله تعالى وحسن عونه وبه, وبه الاتكال من تي غني لم اك رفتو ديمبلام تشي مام لاني وكيل من وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله من يلا داي نيو وير واي امول كينن كودول مام امول كين كوي مام امول كين كوي بخي ولا كوي وري كاتر كودول يالله سبحانه وتعالى gis nga bala ñuy bind téere ñoo maanu te wàcce seen bopp dañuy jël wax ay wax yoo xam ne dañuy doyadal seen bopp def ay tawassul daal di feeñal ak matadi ci seen bopp ba duñu bu ñu bindee téere sax dinañ ko jël listixaar ko seet ko seetlu ko jox ay borom xam ñu xool ko ba dañu koy génne daanaka nag ci daanaka ci manhaj boobu daanaka ci la ti la nekk sax léegi nag mu defaat beneen iftitaax nag ne alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alfatixi alxatim wa ala alihi wa sahbihi ajmain من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لكنك سنت نيونك دنيا بكيب تدلين نيو نيو عندك بركة من جنة أولولك نرجو من سيادتكم التفضل بالإجابة المفصلة والموضحة للأسئلة الآتية مدال دينا دني ياكار تسيانك تدنجيين أكن جنيل وإن جن ñu maanaam ñu am li xam ne mooy ijaaba mooy mooy ñaan gu koo xam ne lu mu ku ñu nangul rek ku ñu nangul nag jeex na lu mu ñaan sa yàlla nangul mooy ak wal ki nga xamante ni mooy mooy leeral yi nga xam ne mooy li lant ci ay masala léegi nag ñu ñëw ci première masala bi léegi mu ne assualul awal ma xukmu man intaqada wuduuhu وسط الذكر أو آخره لان موي اتي كو خامني جابام دا فا توج سي ديغ ورد بي ولا ولا وظيفه بي ولا سي مجيغا مو نيو سي جواب بي موني الجواب موي تونت والله اعلم بالصواب يالا موي كي خام لي جوب وانا من يذكر وردا او وظيفه او هيلله وانتقض وضوءه قبل ان يتمها استأنف العمل وبطل ذكره képp koo xam ni da doon wird wala mu doon wazifa wala mu doon def zikrul jamaati nee na jàppam daal di toj avant muy pare kooku day tàmbaliwaat booba wird bi dafay yàqu zikru bi day yàqu wazifa bi tamit day yàqu ñu ne lu tax mu ne li anna taharata min shuruti sixati wirdan wa wazifatan wa hayla la li nga xam ne mooy laab dafa bokk ci charte yi tax wird wir mooy dafa bokk ci charte yi tax wazifa wir فبوك شرط يدخ إيه لازم منام هاي للاوير موي ذكر الجمعات لا بو امر رك يوي بين دو تي منوير وتامن والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم شرط بنك واخي ما موي لو خمانتني داي ورال manam dafa doon lo xamne da fay war ci lay fekk lépp loo xamante ni mën na fekk lépp loo xam ne lu ñu naan ndax dina am ak du am la mu ñëw tere loola am waaye lu war a am moom charte mënu ci dara ci misaal léegi boo demee ci téere bu ñuy wax al wusul ila binai al furuu ala al usul moom dafay wax ne inna kulla man axdata fi lsolati xadatan muctaadan yajibu alayhi qatcu lsolati li wujudi manafiha moom téere boobu dafa demee day wax ne képp koo xam ne dafa tojle ci biir julli comme tojle yi ñu baaxoo nee na comme ni ñu baaxoo xam li ci tojle nee na kooku day dagg julli googu ndax lu tax li li tere julli gi moo yegsi li koy tere julli moo yegsi li koy tere julli nag bu yegsee julli googu mënatul day dootul exister moo tax mu ne wama qiila fi solaati qiila fi lwirdi lazimati wal wadi fi lwirdi lazim wal wadifati wala hiya la li nga xamni mom lañuy wax ci julli neena mom lañuy jëfe tamit ci wërd ak lazim ak wazifa ak hayla la même chose rek ndax li annahum nazalul lazim nonu la bu ko defee moo tax ne wa shurutul wudu wa wirdi allati la yasihhu bihima xamsatun charte yi nga xamante ni mooy charte yi nga xam ne mooy li tënk wérd ak wazifa te ñaar yooyu duñu mën a wér fekk charte yooyu amul juróom lañ ñu fexe jàpp ko bu baax ba ci njëkk mooy tahaaratul xadas tahaaratul xadas mooy laab ci toj bu mag ci lan mooy laab ci yaramam moo tax mu indi ko min wuduin wa tayammumin aw xuslin laab boo xamante ni day sang day jàpp laab bu amul ndox mu tiim laab wala laab goo xam ni dafay waral luy waral sangu farata la maanaam sangu ca laab foog mu yoo looloo mat ba pare ñaareel bi asaaniatu mooy tahaaratul xabas mooy laab ci toj bu ndaw mooy min jasadin aw sawbin aw il makaani alladi yudkaru fii mooy mu laab ci yéreem laab ci yaramam kom wala ci yéreem wala ci place bi nga xamante ci lay jàngee wérdi bi wala wadifa wala zikru jamaati bi tamit bu amul yooyu benn ci mën wér motomone faman dakara llawasima bi najasatin fi thawbihi aw jasadihi aw mahalli julusihi yuidu abadan képp ku jàng lasim wala wasifa wala bu manti doon fekk mun ko jàng ci sobe ci yéréem wala mu jàng ko mu nekk ci yaramam wala ci place bi nga xamante ni foofa lay eh, tuddati foofa la toog neena kooku da koy baamu abadan toog ci place bi di ko jàng te xam ni fi dafa am sobe wala yaram am sobe ñetteel bi waaw bu ma ñaare ñetteel bi athalisatu mu ne satrul awrati al muglida wala yuidu in zahara faxduhu mooy mu muur yaramam gis nga mu muur yaramam ci loo xam ne lu fatt la mu xuur yaram ci loo xam ne tisi boo xam ni bu ko muuroo yaramam dara du ca feeñ suñ mbokk jigéen ñi ñu bàyyi xel bu baax li ñuy wax kol euh, yi am na ci kol yu woyof yoo xam ni bo ko mooroo ba wér di amoo wér di bu baaxul boo wasifa it wasifa baaxul ndax kol kol googu fattul moo tax boo déggee boo ci fuqaha yi ñu jàng naan bi saw bin saxiifin loolu moo tax mooy tissu boo xam ne kenn du gis sa yaram dara moom ngay sol bu dee kool gi muy muuroo noona noonu léegi nag mu ne wala yuidu du baax ma in zahara ndeem feeñ na faxadahu faqidahu luppam kooku poojam kooku góor ko moom bu góor dafa toog di werdi poojam feeñ kooku du baam te yëgu ko bu dee jigéen la nag day baamu dañ koy atte ci boo demee ci eh, kitaabul xalil jigéen joo xamante ni dafay julli poojam feeñ kooku day baamu abadan fekkee ne nag leneen moo feeñ ci wàllu yaram loo xam ne jotewul ak ay tànkam ak yooyu kooku mën nañ ko dugal ci baamu waxtu bu dee dafa feeñ rek mu delloowaat ko waaw moo tax mu ne moo tax mu ne xu kooku góor ko moom baamu abadan nag buñ ko waxee mooy da koy baamu fu mu ko mën a fekk baamu waxtu nag mooy bu waxtu wa jeexee dootu ko baamu indiw ko fii nag eh, settewul ñaaro yi foofu waaye comme dama tudd ñaar yooyu ñu xam ne mooy loolu rek ñeenteel wi lii tere eh, chart ñeenteelu chart bi tax wér du wér mooy an niyatu mooy yéene bi maanal qas yéene boo xam ne danga jublu pour jàng werd bi masalan damaa jël damaa dem jàpp dem jël kurus dem toog ci sijaada bi loolo mooy qasd bi mooy li tax ma def loola pour jàng werd moo tax ma def loola wala pour wazifa wala pour lazim wa amma niyatu bi maana al imtisal fa hiya ruknun bu dee yéene bi nga xamante ne mooy ñëw pour mooy yéene bi nga xam ne mooy temm ci werd bi sax ci nekk ci te doo ko wàcc loolu ponk la ci juróomeel bi nag mooy adamul kalaami illa li udrin mooy mu bañ a wax li tax wér di wér da bañ a wax lu dul ngant koy tere wax ngant loolu ci kan lay jóge ci way juróom bu góor ak bu jigéen bu dee jigéen jëkkëram waaw ñooñu daal bu ko laajee am na droit wax ak ñoom moo tax mu ne fa bi kalimatin aw kalimatayn nag benn baat wala ñaari baat añ bi pare na nga ne waaw continue xale yi kañ lañ dem jàngi nga ne dem si ngoon mooy ñaari baat continue noonu lay deme wa in zaada batala buñ le ne bi pare na nga ne bi pareegul de parce que dama jëndagul no laaj ak poobar ak jimbo ñoom ñoo ci demagul moo tax waaye yaakaar naan dinañ ko yàq fii léegi ginnaaw tisbaar werd wa yàqu na ci gàttal ci misaal rek bu defee nañu taxaw foofu bu ñëwaatee continue جعلنا الله من التجانيين المحبوبين الفائزين الرابحين في الدارين بجاه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة حفيده وحبيبه وأمين سره مولانا الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته